Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokk yi di ziar di leen dalal sen chaîne YouTube Ben Makhtar di leen wax ne comme ni ngeen ko gisee seen yi dama rek pour divorce yi mooy sëy gawa tasi tas yi sëy bëri problème yi nga xam chaque jour rek ay atelier doon chaque jour waxi te nee naa leen euh, àddina moo doy waar parfois da ngay nekk ak ki nga gën a bëgg nit ki suñ koy bëgg jamono ju nga koy bëgg noonu ko takk ko diggante bi day neex parce que yaakaar naa ne ku ku ñëw nee la dama laa bëgg takk nga nekk sama soxna kooku bañu la kooku ma sa sóor si àddina man ma sa ñaan itam pour am ak yow problème jigéen bi itam nangu la ne la pare naa pour sëy ak yow kon kooku pare woon na pour sëy ak yow bëggatoon ñëw fa dafa fekk problème. kon bu dara amé rek xeyna na dafa am lu ko andi kenn xamul nak allah ahlam yalla mën na def ne mën na jógee fu ne mën na nek pexé nit mën na nek itam lu naturel rek wala ngeen top sen xol waaye lu si mënti am rek ngeen bàyyi xel xalé yi nga xamné ne ñoo si juddu même bu ci xalé yu juddu sax ngeen bàyyi xel itam li leen liyee ndax mariage dafa dafa fort deng kon ngeen bàyyi xel motax toujours rek ñu leen ni jéem fexé di leen ni dimbalé ci côté bobu parce que kenn ñaanu ko yàlla ma xam naa ne képp ku seeg sa jabar wala sa jëkkër ñaanu yàlla di di am moom problème ñaanu yàlla di divorcé ak moom parce que ba nga siy dugg xam naa ne amoon yéene bi waaw kon nag incha allah muy suratu yaasin muy yaasin xalbu quran yaasin mooy xolu alquran euh, muy yaasin wal qurani hakim innaka la minal mursalina ala siratin mustaqim تنزيل عزيز رحيم لتنزل قوما ما أنزل أباهم فهم قافلون لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون باو إليه ترجعون با مجيختك فوفو ميمي لن سخلا ميمي ياسين ينك سبير يب لن يجل خاتم بني وخ مسلس مسلس خاتم دي دوغو سبير ميم يب موي نيار نيغا خامنا نيو سيق سي مونا نيك آه، اي خريت سخ مونا نيك كم سوك نغا امو بروبليم اك سا باترون wala nga am problème ak sa jëkkër sa jabar sa rak sa mag ku mën ci doon nga bëgg jàmm am fa coow lu fa am jafe-jafe yi fa am tàngoor bi nekk seen diggante ba nga xam ne mënu leen ne si jàmm parfois sax kenn ki day toon waa ma kii pourquoi mënu ma neewoon moom si jàmm di poser question dégg nga euh, loolu nag buñ ko liggéeyee ba pare si sortu yaasin xam nga yaasin dafa bëri mim mim yu si nekk yëpp lañuy ñuy jël tëgg ko loolu ay xale safara lañ koy fayee dégg nga ba pare am tam neneen ñu ko defaatee loolu yëpp dafa xaw a jaxasoo xaw a kii bu ñu leen ko expliquer da ngeen ko mën a comprendre waaye comme li ma leen fa faral di wax toujours pour dimbale leen pour suñu bopp ñun tam àddina boo si di dund nga xam ne ëllëg bi mu yàgg-yàgg dama fi jógee ñi ngay ñi la ñi ngay jëflanteel da war a dimbalante ak ñoom ba nga xam ne ëllëg di si mën a am yool di nga si mën am tiyaab waxuma nag ngeen am problème sol seen dàll sëriñ sëriñ ngeen dugg fa fu ne ngeen dem fa pasar pasare seen xaalis Euh, te du ngeen te du faju da ngeen pare rek jëlee si naqaru xol te léegi da si am ñoo xam ne dañoo taxaw rek uniquement pour ñi am problème yi di ñëw pour ñu mën leen di leen lekk ngeen bàyyi xel loolu man comme ni ma leen koy waxee toujours rek sama vidéo yi mënuma yàlla mën yàlla mooy mottali ñun luñ am am am xam-xam ak luñ mën a mën a xam itam dañoo jël yàlla joxaat ko lenge yépp dégg nga kon nag ginnaaw booy ñaanee sa loxo da ngay ñaan sa làmmiñ tàllal sa loxo di ñaan bu wax ne ñaan bi dee ñaan rek waaw képp koo xam ne itam am nga jafe-jafe boobu boo ma boo ma wooyee incha allahu rabbi dinaa xool naka laay def ba mën see dimbalante ak yéen sama numéro baa ngi noonu xam ngeen ko ñu ne si jafe-jafe sëy yi ñu bëgg a sëy seen sëy yi mënta fexe ba sotti jafe-jafe yi ne si kër yi jafe-jafe yi ne si diggante yi ngeen woo ma bu ko defee incha allah ñu teg ko si njub teg ko si dëgg teg ko si lu neex yàlla bu ko defee incha allah man dinaa xam naka laay dimbalante ak yéen bu neexee yàlla suñu borom. ndaxte loolu mooy suñu cër dimbalante ginnaaw loolu duñ ci lor man duma bëgg a lor kenn duma bëgg tamit kenn lor ma dimbalante teg ko si dëgg teg si yoon teg si yoonu saata mu taqim wax naa leen duma sëriñ képp ku ma woo su ma jotee alhamdulilah baax na parce que parfois mu fekk ma féex ma mën laa décrocher wax naa leen na leen ku ma woo jotuma na ma yónnee message whatsapp whatsapp bi tôt ou tard dinaa ko lire te dinaa la tontu. ñi ma du tontu wala ñi ma du jëflante rek mooy ñu may wax waxi caaxaan waxi caaxaan moom bu leen sax yaakaar ne daan si tontu waxi caaxaan bëgguma ko képp ku may wax fulla ak fayda dinaa dimbalante ak yéen ba keroog yàlla di leen may ndam incha allah kon sama numéro ngi noonu ngeen fexe képp ku ko kii rek ngeen contacté mu ñu seet nag la ñuy def surtout say yëngatu yi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.